alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baal àq te di leen baalu àq di ñaan yàlla mboole ñu jégal mboolem réew mi ak waa mboolem ak mboolem waa bitim réew di wax auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-daalliin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa himmata shaykhi bi haadhal mahdari wa taati bi tey waxtaanu tey bi moo nekk ci li nga xam ne ci la ñuy yëngatu muy wàllu ñaan ak ñaanlu lii jëriñ nit ci wàllu am-amam ak lu koy aar euh, mu am ay nit ñoo xam ne dañoo laajoon ay question euh, di laaj ci jaaro bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ak ndombo gi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ak sangat yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey euh, man ñi nga xam ne ñoo ko laajoon ci ay question ma leen di wax ne man li may joxe ci ay ñaan euh, li may joxe ci ay ñaan nekk na loo xam ne nekkut lu ñuy laam-laame walla lu ñuy nëbb xam nga c'est évident nga gis ci jamono bii koo xam ne day jël ay ñaanam di ko def ci internet di wax nit ñi ne leen jël leen nàngam ak nàngam ngeen jëfandikoo ko kooku kuy làqatu du ko def walla koo xam ne dafay arnake nit ñi du ko def donc àddina bi nag bu nit ñi nax seen bopp gis nga àddina bi ko yàlla bindee ba tey du tey la yàqoo àddina bi ko yàlla bindee ba yàlla waxee usjudu li malaayka xaaloo ñu bañ ñoom ñépp ñoom ba yàlla waxee ne usjudu li malaayka eh, eh, fa sajadoo ilaa iblisa ñoom ñépp dañoo bañoon waaye balaay pour yàlla fexe ñu sujjóotal aadama dafa ne waxal la ma aadama lasmaa kullaha yàlla dafa jëlal tur yi yëpp mu xamal ko aadama ba mu ko xamalee aadama mu laaj malaayika yi xa malaayika yi ne ko subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa alamtanaa innaka anta alimul hakim malaayika yi ne ko ñun tudd nañ sa sell yooyu yàlla xamuñ dara dara dara dara lu dul loo ñu xamal contestation foofu la njëkkee mooy euh, malaayika yi ñoom wax nañ yàlla ne ko xamuñ dara lu dul loo ñu xamal yàlla ci boppam jël tur yi ak yépp mu xamal ko aadama foofu la xam-xam ñëwee nekk supérieur ci képp koo xam ne ku réere nga li nga xam ne mooy xam-xam kon supériorité boobu mënut te ñàkk dans la léegi nag tërian ak tappale foofu la commencé mooy ci iblis iblis wax na yàlla ne ko yow yàlla xamoon nga ne yow di ma bind xamoon nga ne bu ko yàlla waxee ne ko euh, lu tax nanguwuloo sujjóot li nga xam ne maa bind ak sama loxo yàlla iblis lu mu tontu ana xayru minhu xalaqtani min naari wa xalaqtahu min tiini yow yàlla man maa gën aadama parce que yaa ngi bind ci safara yow moom yaa ngi ko bind ci suuf te sax yow yàlla jiitu ci azal xamoon nga ne man di ma bind xamoon nga ne di ma wax ma sujjóot ak aadama ma bañ xamoon nga ne di dinaa bañ te man sax yàlla du ma fi nekk yow nga nekk fi aadama nekk fi adama ni jàmm ni man yow ngay sama borom ma fi bàyyi sama borom di sujootal sama moroomu jàmm kon xam nga kooku ut na lay wu leer waaye yàlla lu mu ko ton doon bu gën a gàtt gën a leer mooy wax jooju rek dafa war doy yow jaam nga jaam bu ko dafay def li ko sant kon contestation foofu la jëkki kon ñi baax bi aadama yàlla bindee aadama aadama nekk ku baax iblis nekk ku bon ba bisab yàlla tey kenn mënul fexe ba ku baax du nekk nii ku bon nekk nele bu àddina bi yëpp dajee nag àddina bi yàqu na dañuy nax seen bopp àddina dara yàquwu ci nit ñi ñoo yàq seen bopp waaye dara yàquwul ci àddina ndax jant bi fi mu doon génnee ba léegi fa lay génnee tàngaay bi mu doon tàng ba léegi moom lay tàng ngelaw li doon upp ba léegi mu upp suuf si doon saxal gàncax ba léegi mu ngi koy saxal yàlla ji doon taw a ngi taw ba tey kon li ci des kay mooy nit ñi buñ bëggee ne ñoom dañoo bon dañuy bon kenn mënu leen tax a baax kon moo tax ñaan fam nekkoon ba tey ñaanang fa ñii ñaanlu ba tey ñu ngi ñaanlu ba bésab yàlla tey nit ñaa ngi ñëw ñu leen di ñaanal nit ñaa ngi dem di sàkku ñaan bu ñu toogee rek ne ñëpp a yem kooku ku dof rek moo koy wax. kon nag li nga xam ne moom mooy wàllu ñaan yi nga xam ne man maa ngi koy joxe nga xam ne yàlla dogal na ko ci ñun mu nekk lu am barke. mu nekk loo xam ne ñëpp seede nañ ko nit ñi gis nañ li nga xam ne mooy njëriñu ñaan yi nit ñi gis ne li nga xam ne mooy barkeem ñaan gi li jëm ci wàllu jaaro boobu nga xam ne moom lañ ma doon laaj noonu may leeral jaaro bi pour wàllu alal la koo xam ne da nga bëgg a am alal bëgg a am wërsëg bëgg a am ubbeeku ci sa wàllu euh, activité nga xam ne yàlla dafa dogal ngay def commerce walla yàlla dogal ci yow ngay liggéey liggéey bi nga xam ne moom ngay def mu nekk lu taxaw ci benn barab mënta avancer mënta yokk soo amee jaaro bi di ko takk ko yàlla dina ubbi sa mbir dina la yokk dana la aar ci wàllu cet ak ci wàllu pexey noonu jaaro bi nekk na mbir moo xam ne mbir mu gaaw la may alal ci wàllu wërsëg ak wàllu ubbeeku ci wàllu alal fan yii rek am na kenn koo xam ne woo na ma téléphone ma sa jaaro bi ak sa ndombo gi bi ma ko takkee fépp foo xalaat ci kaw suuf ci àddina bi yàlla may na ma taw tawfiix ma tukki fa waaye mu dema dema dem xam nga rek àddina bi boo yàlla bu la yàlla ubbee da ngay dema dema dem ba yaakaar ne yaa ci nekk mu xëy tekki ndombo ndomboge tekki saa sànni ko fële affaire yi mel ni daf ay gént ci moom lépp jékki-jékki na France dem mu oo ma téléphone ne ma man kat damaa jombi ci sama bopp léegi dama bëgg nga dimbale ma parce que xamatuma ci sama bopp dara ma yónnee ko cuuraay bi bi mu ko suuróowee affaire yi commencé waat di di di di doxaat moom ci boppam def na commentaire ci Facebook bi commenté na ci wax ci ma ne ko yàlla moo def secret ci yëf yi léegi nag soo ko amee nag naagu sànni ko dafay dem parce que affaire yi bu la yàlla nangulee nangul na la kon wàllu gàllaaj bi nga xam ne mooy wàllu jaaru bi ci wàllu wërsëg ci wàllu alal noonu la lay def daf lay yombalal lépp loo nekk di ci yëngatu bu dee da ngay jaay da ngay gis mu dox da gis ne bu dee da ngay ut alal da ngay gis alal di lay yomb da ngay gaaw a am te li ci gën a garaaw nag mooy sam ñi nga nekkal danañ toog di waxtaanee sa mbir. kii li muy am fu mu ko jëlee lu ne danañ la ko wax nag mais yow mi xam li nga xam xam ne yow yaa am sa secret yow yaa takk sa secret nëbb noppi jàpp sa jàpp sa bopp su dee wàllu ndomba gi la moom boo ko takkee bu dee ay rab nga am wala àndandoor yu lay yàqal wala nga nekk koo xam ne loo yaakaar mu tas wala loo yor rek mu yàqu boo takkee ndomba gi loolu yàlla daf koy dindi bu fekkee ne da nga nekk koo xam ne da nga yor ay àndandoor yoo xam ne yow judduwaale la nga xam ne loolu moom euh, kenn mënu ko dindi dafa bokk ci yow ñu lay yàqal bu boobaa boo ko takkee daf lay aar ci ñoom ba ñoom bu ñu la bëggee yàqal du ñu la mën a yàqal bëri na bëri na ñu am ay gàllankoor ñu yaakaar ne dañu leen liggéey kenn liggéeyu leen dañoo am ay rab te faju ñu ko moo leen sonal moo yàq seen alal moo leen tëj moo leen téye moo tax àddina bi ñu nekk ni tey ni nit ñi di yokkoo noonu la rab yi di yokkoo ni nit ñu baax ñi di yokkoo noonu la nit ñu bon ñi di yokkoo noonu la rab yu bon yi di yokkoo moo tax ku nekk ci sa bopp boo xoolee ci sa bopp xam ne yaa ngi def li nga li laa war yaa ngi def say devoir yaa ngi góor góorlu yaa ngi joxe yaa ngi yaa ngi liggéey yaa ngi yëngatu yaa ngi teel a yeewu yaa ngi def li nga war yëpp mais affaire bi mënut a dem xam nga ne yaa da nga war a xam ne yaa quelque chose boo xam ne moom bu la ko affaire yi moo tax nit ñi nag dañoo war a góor góorlu di ñaanlu du ñaan yëpp nga mën defal sa bopp te it toog di wax naan. nit ñëpp yam yem da nax sa bopp gaa yaa ngi dem de gaa yaa ngi ñaanlu ñu ngi avancé ñu ngi yokk ndax man mii nga xam ne loolu mooy sama domaine muy sama métier xam naa ci dara xam naa bu baax ne nit ñi ñu ngi ñaanlu ta ñu ngi may oo ñu ngi may gërëm ñu ngi may remercier kon nag li may conseiller sénégalais yi di leen di ko conseiller àddina bi di leen wax ne nañ jaamu yàlla nañ nangoo liggéey waaye nañ sàkku ay ñaan ndax àddina bi fii mu tollu tey Euh, ku bëri ñu daanu fi sa kaw ku bëriwut ñu daanu si sa kaw kon li ëpp solo mooy ñaanlu ak di ut ay sangat am naa nag sangat boo xam ne pour wàllu wërsëg la boo xam ne bu baax la sangat yi dafa am ay niveau am na sangat yoo xam ne saawaay duma ko wax ci internet duma ko wax ci rajo duma ko wax ci télé nit mooy jëflanteeg man suñu relation egg fa ma soog koo wax ba mu gis petit petit euh, euh, petit bi nga xam petit étape bi nga man samay ay affaire dafa am ay niveau am na ñoo xam ne seen niveau fi mu toll ak man fa laay waxee ak ñoom waaye am na ñoo xam ne àgg nañoo ak man foo xam ne du ma leen laaj sa xaalis ñoom ñooy ëkkati lu takku jox ma ne ma sëriñ bi seetal lu baax ci man nga jox ma ko ñooñu noonu danaa leen jox loo xam ne du ma ko wax ci rajo du ma ko wax ci télé te loolu c'est vérifiable lu ma lay wax ne loolu leer la man lépp lu may wax rek dafa nekk loo xam ne. Euh, dafa nekk loo xam ne luñ mën a luñ mën a luñ mën a xool la dafay nekk loo xam ne luñ mën a luñ mën a luñ mën a xool la àddina bii ñu nekk ni tey dafa nekk àddina boo xam ne àddina euh, bu jaxasoo la waaye nag lu jaxaso jaxaso jaxasoo ki nekk ci dëgg moom bu mu ragal ki nekk ci dëgg bu mu dellu ginnaaw parce que man maa njëkk a wax jaaro ak ndomboo ci télé ak rajo ba ma ko telee wax ba tey mosuma cee reculer mosuma cee dellu ginnaaw mosuma koo muy mosuma cee yox yoxi ndax dimbale gi ma ci dimbale jaami yàlla yi moo tax nit nag su fekkee ne yaa ngi dimbale jaami yàlla yi ndimbal loolu nga leen di defal bu nit ñu bon ñi tax nga bakko loolu dama koy wax pour conseiller ko ñeneen ñi ñu am courage dimbale nit ñi te yàlla tax ñu am courage dimbale nit ñi te yàlla tax te bañ a déglu nga xam ne ñooy wax te nga xam ne yàqaleen tax di wax donc àddina bi nag nekk na àddina boo xam ne àddina bu jaxasoo la waaw sangat yooyu nag may wax am na ci yoo waxam ne boo ko sangoo eh da ngay të da ngay kenn mënatu catu ci kaw suuf mu jàpp la am na ci yoo xam ne boo ko sangoo da ngay am alal xaalis da nga koy am da ngay ubbeeku da ngay yokku am na ci yoo xam ne boo ko sangoo eh cat day denc sa yaram ba set wecc ci sa yaram dañ koy raxas ba mu set wecc comme ni ñuy raxasee àlluwoo noonu la ñuy raxasee cat ci yaram. am na ci yoo xam ne boo ko sangoyee yàlla dafay xëcc nit ñi ñu ñëw ci yow nit ñi dañ lay bëgg nit ñi dañuy waxtaanee sa mbir nit ñi dañ lay tudd fu ñu mën a toll dañuy waxtaanee sa ay mbir am na sangat boobu boo xam ne wàllu bayre la am naa live boo xam ne dama koy def gratuitement pour wax nit ñi li leen di xaalis ak leen di may ay sangat ak kooku nëbbatuwul loo xam ne yow boo ko essayé gis ne baax na kay sëriñ bi amul loolu ki lay wax na maa la ko mën naa la ko defal kay xam nga ne kooku moo la gën a maîtriser am na ci kenn koo xam ne bi ma oowee téléphone daf maa oo laaj ma waa sëriñ ba sa sangat yi ngay wax noonu nuñ koy defee man a ko expliquer ko yëpp na ko soo ko munee nga def ko soo ko mënta def nga fay ma ma defal la ko parce que man du ma bàyyi sama temps jox la sama xam-xam pare di di sama temps di ko def ci yow ko def li mooy xam ma am mën naa la koo wax nga dem defal ko sa bopp su fekkee ne gis nga ne mënoo ko defal sa bopp nag laa nag ah du ma temps nag du ma ko parce que temps est pré le euh, temps est précieux donc temps boobu nag du ko jël di ko def gratuitement mën naa laa jox sama xam-xam mais du laa jox sama temps moo tax nit day sérieux nit day day day maandu nit day wax dëgg te yàlla tax lii ma leen wax nag sama live boobu boo xoolee si sama page bi boo xoolee am na ay yenn yenn live ñu ma fa def di wax nit ñi li nga xam ne moo leen di jëriñ ak leen lay may xaalis parce que xaalis dafa am lu koy maye liggéey dina ko maye waaye boole ci ñaan yàlla dafay tax mu gën a gaaw waaw liggéey moom mooy priorité mooy njëkk lépp waaye nag ñaan mooy ngànnaayu julit yonent saa salaam daf nag nga ñaan mooy mooy jaamu yàlla bu ñuy wax yuqu jaamu yàlla mooy ñaan kon ñaan fii lañ ko fekk nañ ko góor góorgóorlu sangati nag baax na sangati moom baax na lool am na sangat yoo xam ne moom boo bëggee am alal danga koy sangoo parce que saawaay fu du tooy du sax ñax de fu du tooy du sax ñax de boo bëggee mu sax ñax dafay tooy parce que boo bëggee lijaaba da ngay nangoo wirda soo bëggee xaalis da ngay nangoo sangu dangay nangoo sangu sangu mooy maye xaalis su ngeen bëggee xaalis da ngay nangoo sangu day di tooy waxtu wu nekk muy tooy gis nga bàq buy tooy sax bu yàggee ñax ma sax fa kon ku bëgg a xaalis da ngay nangoo tooy di sangu waxtu wu nekk di sangu waaye nga ut na koo xam ne mën na am ay sangat yoo xam ne du tëjaate am na sangat yu bari yoo xam ne day tëjaate am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci man man su ma leen xoolee damay xam ne ñii dañu leen tëj dañu leen jox ay sangat bañ tëju ñu bari tey tëju nii gars yi ñoo leen tëj parce que amuñu luy dindi tëju tëju moo tax man képp ku ma ci sang li may njëkk def mooy damay dindi bépp tëju tëju bu nekk ci yow ba pare dèjà ma soog laa jox yi nga xam ne moom lay may xaalis ak lay may wërsëg ak yu lay ubbi moo tax ñaan dafa am technique yu ñu koy defee pour nga mën a ñaanal nit nag mu nangu ci jamono bi c'est pas évident moo tax nit ñi il faut ñuy dem borom expérience yi ak ñi nga xam ne am nañ lijaaba ñu mën leen a defal ay ñaan ñu mën a gis seen ñaan ñaan nag àddina bi ñu toll ni tey ñëpp a ngi jóg di wax a ñaankat lañ jaaykat yi daal yaa ngi wax jaaykat ñaankat lañ jaaykati commer commerçant yi léegi bàyyi nañ commerçant ñu ngi wax ñaankat lañ dawalkati sareet yaa ngi wax ñaankat lañ waaye taxu ñu nekk ay ñaankat de taxut ñu nekk ay ñaankat ñaankat dafa am moo tax nit ñi nag nañ xàmmee ñaankat yi nañ xàmmee ñi nga xam ne ñoo spécialisé wu ci domaine u ñaan parce que ci domaine u commerce am na ñoo xam ne ay spécialité spécialité euh, euh, euh, spécial lañ ci am ñoo dañ ñoo spécialisé wu ci commerce soo demee ci côté li nga xam ne mooy wàllu technologie am na ñoo xam ne dañoo spécialisé côté technologie loo gis lu ne am na ñu ci ñu ci ñu ci xereñ kon nag ñaan li may conseiller nit ñi mooy ñaan nañ di bàyyi xel ci côté li nga xam ne mooy ñaan te di ñaan lu di ñaanal seen njaboot gi bañ a sàggane seen ay njaboot bañ a sàggane seen alal alal soo ko amee danga koy tiye alal soo ko amee da nga koy téye liggéey booy liggéey sa liggéey dëkk bi nii boo ñaanee ñu ngi ñaanlu soo ñaanut ñu ngi ñaanlu ki la gën a weddi ñaan mu la dàqa ñàllu parce que man mii recevoir nit ñi ku ne kanam gu ne gis naa ko fi ci sama kër gi waaw ku ne gis naa ko fi moo xam day ku yëngatu ci politique la moo xam ku yëngatu ci wàllu euh, euh, euh, éducation la moo xam ku yëngatu ci leneen la ak ku mënti doon ñi weddi ñaan ñoo dàqa ñaanlu koo ci gis am na sëriñ muy sàmba muy demba muy paate kenn tanewula ci ñépp ay ut sëriñ ñépp ay ñaanlu loolu moom bàyyi leen ci xel bu leen nangu kenn ku leen di décourager ci côté ñaan na ngeen xam ne ñaan dëgg la yonent sallallahu alayhi wasallam moo ko moo ko moo ñu ko jottali te yàlla moo ñu wax ne nañ ko ñaan mu ndax ñaan moom mooy tax mu bég ci ñun yàlla mi nga xam ne moo dàq maye nag moo ne wax moo wax ne nañ ko ñaan kon nag adduhuni la ko ñaan leen ma ma may leen waxut sax ñaan leen ma rek dem ca waaye dafa ñaari baat yi sax daf leen a lëkkale mooy ñaan ak donc kon nañ xam ne ñaan moom mooy mooy mooy mbir mi ñu bàyyi nag ñu yàq yàqkat yi ak truands yi nga xam ne ñu nga ca commerce ba ña nga ca hôpitaux ya ña nga ca euh, euh, taliba ña nga ca car rapide ña nga fu ne tappale tappalekat yi fu ne lañ nekk man ma ci tappalekat yi ñaankat yi ci laay wax ñi nga xam ne mën nañu ñaan sérieux nañu mën nañoo dimbale nit ñi loolu ñooñu laay ñooñu ñoo tax may wax waaye wax ma ñi nga xam ne naxaate rek moo leen tax a jóg te naxaatekat yi nag ñoom seen carrière du yàgg ñu làll seeni bagaas dem man gis naa fi ñu bari ñoo xam ne dañ doon ñaanlu dañ doon ñaanlaate ñu ne yooyu yaay ay sëriñ lañ ana ñu tey ña nga ne ña nga ca commerce wa ñii ña ngay tappale di dem ñuy pare nañ ca parce que bokkuñ ci te bokk lu wolof dafay wax la lu du dëkk du yàgg wala bu yàggee du wéy loolu moom moo ci nekk waaw nit ñi nag dofuñu koo ci ñaanal mu dem ñëwaat parce que lañ nga ko joxoon dafa daf koo gis waaye koo xam ne boo ko ñaanalee mu dem bu demee du delsi c'est parce que li nga ko wax gisul ko wala mu nekk koo xam ne saawaay dafa xam dafa moo tax dëkk bi buñ kenn nax kenn nañ gëm ne lii mu dëgg la parce que loo xam ne ci say maam nga ko jëlee jëlee ko ci say baay say donn ko fekk ko fi gën koo dëgëral loolu yàlla dala da ciy def barke kon loolu laay wax nit ñi alhamdulilah jaaro bi nga xam ne ñu ngi koy joxe jaaro bi mi ngi fi nit ñaa ngi koy jël ñu ngi ci sant yàlla bu baax ñu ngi ci am ay retour yu baax yow retour yu positif ay nit ñoo xam ne amuñ woon dara tey tekki lañ am nañ alal à cause ñu ci ñaan gannaaw yàlla am na ñoo xam ne dañ leen doon xeex am na ci kenn koo xam ne mu ngi nekk Amérique kooku bu ñu koy xeex hôpital bi mu nekkoon dafa liggéey gars yi dañ ko doon xeex pour war koo dàq ci palaasam bi ma ko yónnee ndombo gi ba mu ko takkee la ca yàlla def barke mu mu mu mu mu mu ñu dañ ko doon fexeel fukki nit ak juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ko doon fexeel 17 personnes ñëpp lañ dàq bàyyi ko fa ma ne ko gis nga liñ ma lay wax ci wàllu gàllaaj ak ñaan am na koo xam ne bi Macky Sall di répartir euh, euh, sénégalais yi nekkoon Allemagne président Macky Sall euh, kenn ci ñoom dafa maa oo téléphone dama damaa bokk ci ñuy sélectionné pour delloo leen Sénégal munu mën a ko jëlal ndomb gi ba mu jëlee ndomb gi moom dong lañ ci oo may ko kayit am na ci koo xam ne ba mu nekkee France Italie la nekk moom nee na ba mu demee di uti kayit ndaw si mu fekk mu koy war a bindal affaire yi bu mu takkee gàllaaj gi mu demee moom ndaw si defal na ko li defal yëpp ba mu pare te siggiwul sax xool ma ne ko ñaan moo mel ñaan bu ko yàlla nanguwoo am na ci koo xam ne Italie la nekk moom dafa maa wax sax Cheikh sa jaare ko ci ndom bi dama bëgg nga arrêté parce que di ko jox nit mu def ci naka noonu bu ragalul yàlla dana ci def bu la ko affaire bu la affaire yi uyoo su mu ne ma Cheikh Omar nekk yow sa affaire nii la nii la mel lii bu la uyoo kenn xamut nu mel mu ne ñaan moo mel noonu ñaan bu yàlla nangu noonu la mel fekk moom ci boppam bi ba ko joxee ndom bëgg jaare bi toog na lu ma 3 mois mu oo ma téléphone ne ma Cheikh Omar faju naa 89 ba tey yaa ma fajal sama ndoxu siti bi fu ne dugg naa pour faj ko mu të waaye sa jaaru beeg sa ndomb gi nga ma joxoon li nga ma ci waxoon tus laa parce que man dama lay wax dëgg te yàlla tax su baaxee damay wax baax na su bonee damay wax bon na ma ne ko d'accord jox naa la ko mu ne waaw ma ko ci jafe-jafe la fekk jafe-jafe ya dañagul takkal xol rek ma ne ko nii nga ma ooyee nii noonu nga may oowaatee gërëm ma waaye keroog ba may oo téléphone daf na ma carrément sa ndomb ak sa jaaru bi dama bëgg nga arrêté ko parce que di nga ko dox nit kàccoor mu def ci naq sudul noonu ndax yëf yi moom bu la uyoo nag nii lay mel ma ne ko alhamdulilah kon yàlla nii nag loolu bari na ci ñoo xam ne tey jox naa leen jaalo bi jox leen domba gi tey yàlla may na leen alal may na leen ubbeeku may na leen sutura moo tax ñaan dafa am kuy werante ñaan eh, dangaa gisagul ñaankat wala dañ laa ñaanalagul bam nangu moo tax man maa ngi ñaanal yàlla ñëpp yàlla na leen yàlla may alal du bari may leen wér ak mucc nañ ñaanal suñu mbopp nañ ñaanal suñu mbokk nañ sàkku ay ñaan ñaan dëgg la am na ay secret yoo xam ne kenn du ko sangoo te amoo kër am na secret yoo xam ne kenn du ko sangoo te amoo waruwaay muy oto am na secret yoo xam ne boo ko sangooyee xaalis day tax ci sa loxo dootoo tàqali ko xaalis ilaa yowmal qiyaamati am na secret yoo xam ne boo ko sangooyee ñàkk day dañ sa kër am na secret yoo xam ne boo ko suulee sa biir kër dépense moom dootoo ko jooy nit ci kaw suuf yëpp am na secret bu amul ci kaw suuf am na xanaa nit ñi kay ñoo xamut li ñuy wax rek wala ñoo xam ñoo ci ñoo wut ak ñaankat waaye wér na secret yoo xam ne boo nekkee ci quartier dund ba fa ña fay quartier ba nekk la ñuy dundee yow yaay doon ki ëpp dund bu neex ci quartier ba bu dee dëkk la yaa fay gën a neex dund yaa fay gën a neex kër loolu dafa nekk mag ñi dañ daan samp seen kër yi samp gu wér jël yoo gàllaaj yi gàllaaju kër dafa am gàllaaju oto dafa am gàllaaju nit dafa am gàllaaju alal dafa am loolu dafa nekk lu wér ku le kuy tayalloo nit ñi ci ñaan te parce que am mënoo ñaan wala demoo ci ñaankat loolu mooy li xew ñaan dafa am ñaan dafa nekk dëgg képp ko xam ne bëgg dem nga ci ñaankat mu ñaanal la yàlla te ñaan nag gis nga sangat yee takk yi baax na de waaye xam nga lan moo gën a gaaw ci ñaan kurus nit téye la dog moo tax tout récemment am na benn dama benn waaye bu nekk Allemagne bu nekk Amérique damaa yeewu rek mu yónnee ma ceeb diwlin suukar lépp dund lépp mu yónnee ma ko kaw ba suuf yëpp mu yónnee ma ko ba yónnee ma sax spaghetti yónnee ma sax yàpp yàpp xam nga yàpp bi mu ko jëndee nu mu dem dafa jënd bu am yax bi bu ak bu amul yax bi mooy bu am sans ak avec os noonu lañ ko waxee ci tubaab noonu noonu la léegi nag bi ma ko yónnee dama njaayee njaayeen baal damay wax dëgg te yàlla tax bi ma ko yónnee ma oo ko ma ne ko léegi joxaat ma sa adresse ma yónnee la ay sangat mënuma déedéet Cheikh ma soxla ma ay sangat sa kurus googu laa soxla nga yëngalal ma ci ma ne ko saa waay yow xaw ma ku lay yee waaye yeewu nga ma ne ko baax na amul problème ca laa ko téyelee ay dog di ko ku bàccal te loolu mat nit oo ma sax man na ma dama bëgg nga duggal ma xalwa 5 jours ma jox la 5 millions ma ne ko xanaa damaa dof man danaa jël 5 jours tëju ko di ko ñaan yàlla di la ñaanal yàlla pour cinq millions ma ñaanal ko sama bopp xanaa man damay nelaw man danaa tëju cinq jours di dóor ba xam man ma xam kurus xam li kurus mën xam li kurus mën a joxe. may bàcc di gis ñaan man dem naa ba découvrir na ñaan dëgg la nga xam ne su ma amee soxla damay toog jël sama kurus toog jàkkaar la yàlla deux heures de temps laay ñaan man cinq jours pour lan ma ne ko xalaatuma ko su ma tëjoo cinq jours sama bopp laa ñaanal ma ne ko sama cinq jours mënoo mu koo fay dix ma danaa toog cinq jours pour cinq million cinq millions day dara cinq millions du pour ay heure la soo ma joxee cinq millions deux heures de temps laa lay pour cinq millions xalaatuma jël cinq millions di ko def pour cinq cinq jours su ma ko amee di ko tëju sama bopp laa koy ñaalal ak sama njaboot mais du ma ko ñaanal pour ku ku may jox xaalis xanaa man damay nelaw ma ne ko xaalis mooy lan xaalis xaalis xaalis du dara pour am ko man kay su fekkee ne mën naa laa ñaanal ngir yàlla waaw mën naa tëju cinq jours ñaanal la ngir yàlla dara soxloo ma ko ci mais cinq jours pour tëju cinq jours pour nga jox ma cinq millions soo ma joxee cent millions ma toog pour cinq jours pour yow mais xanaa man damaa dof waaye ñu ne ma yow seewal yow xanaa yow dangaa ma ne ko soo bëggee mën naa laa booleeg ay fii ay nit damay xarit ñu ñaanal la yàlla cinq jours ñu dugal la xalwa mais man xalaatuma tëju cinq jours di ko ñaanal nit pour mu jox ma cinq million xalaatuma ko ci kaw suuf loolu kuy kuy nelaw moo koy def ma ne ko man dog dugguma ci cadre boobu te loolu ki xam ñaan moo moo xam luy valeur ñaan ñaan bu xasee jàpp c'est à vie kurus bu xasee nangu c'est à vie moo tax bu ngeen di dem ci ñaankat yi da leen jël affaire de mbaqus xam nga mbaqus di jël dara am na ci ñenn ñi may defal ay ñaan ñoom yeewu nañ ci côté boobu ñoom dañuy jékki-jékki sa Omar dugalal naa la nangam taawaay dama bëgg taaya yi nga yëngalal ma dara ma jàpp sama kurus jël sama dog dóoral la bokkut ak jox la ndomboog jox la jaaro de mais balaa ñuy egg ci loolu dafay fekk nga xool ba xam ndax kii li muy wax dëgg la wala du dëgg man li may wax géntuma dara doluma li may wax lu wér péng la parce que ñi ma jege xam ma xam nañ ne man mën naa ñaan yàlla tam ma ñaanee yàlla mu nangu takk ko toog naa 10 ans yoo xam ne li may li may wirda di ko julli di ko ñaan yàlla mooy ñaan yàlla li jaaba su ma yàlla mu nangu alhamdulilahi rabbil alamina loolu bu la ko yàlla defalee moom mënatoo fay yàlla mënatoo def lu du sant yàlla nga xam ne boo taxawee jàkkaarleeg penku bi nekk allah allahuma yàlla ñaan ko dara mu may la ko balaa muy am 24 heures saa waaye loolu yombul de loolu nekku moo tax yow maa ngi leen di conseiller di leen dénk ñuy wàññi nelaw guddi tey wirda di ñaan yàlla pour yàlla may ñu alal pour yàlla may ñu lijaaba pour yàlla may ñu loolu man maa ngi leen koy digal moo tax nit boo gis na góor góorlu nit boo gis na góor góorgóorlu ci ñaan yàlla nit boo gis na góorgóorlu ci ñaan yàlla da leen ñaan da leen ñaanlu da leen da saraxe da leen saraxe surtout sarax da leen saraxe su ngeen ñaanatee ba pare da leen saraxe su ngeen ñaanatee ba pare da leen saraxe su ngeen di saraxee sarax day dindi gàllankoor sarax day dindi nattu sarax day dindi yaakaar buy tas sarax day dindi rab sarax day dindi mboolem loo xam ne luy luy lu nekk ci nit la sarax daf koy dindi moo tax gis nga képp ku leen di tayalloo ci ñaan ba xam ndax su ngeen ci tayalee da ngeen nekk ci lu ko gën da nga gis kenn ku tayal ci ñaan ba pare nekk ci lu gën ñaan doo ko gis mukk moo tax na ngeen lu ci ñaan ngeen góorgóorlu ci ñaanlu da leen ñaan da leen ñaanlu da leen ñaan da leen ñaanlu man loolu laay digal da leen ñaan da leen àddina bii ñu nekk gàllaaj gi gën a am solo ci ñaan mooy di ñaan di ñaanlu loolu moo ëpp solo ci àddina bi ñu nekk nii lépp loo gis nag ci kaw suuf am na secret lépp loo soxla am na secret lépp loo yóotu am na secret secret bu secret nag daj ci nag daj dal ca nag moom mooy li jafe waaye boo dajee borom ijaaba mu lay ñaanal yàlla da nga gis ne ñaan wér na ñaan dëgg la mataka ñi ñi ñi ñëpp duñu ay ñaankat de comme benn jigéen bu nekkoon France bi ma waxee na ma moom moom mooy ñaanal boppam wala yaayam ñaanal ko ma ne ko d'accord comme mokkal nga alxuraan jàng nga ko yaay ñaanal sa bopp yaay sa yaay di la ñaanal ma ne ko lu boo feebaree doo dem euh, euh, ci alxuraan di nga ñaan fa wala nga dem euh, sa yaay ñaanal la mun a lu tax ngay dem ci docteur mun a waa parce que docteur moo ko jàng ma ne ko jeex na kon ñaan nag dafa am ñaankat ñaan dafa am ñaankat ñaankat yi ñoom ñooy ñaan parce que soo soxlaa dara nga koy ñaan. ay weer ay at sottiwut war ngaa xoolaat sa bopp la nga xool li ngay ñaan ak ni nga koy ñaane nga seet ku la mën a ñaanal mu ñaanal la yàlla parce que léegi àddina bi lépp yàlla yombal na ko dem Makka yomb na léegi dem Kaaba ga yomb na léegi noonu la ñaan yombe mais ça dépend nag ci nga nga engagé wu pour nekk ñaankat moo tax li may conseiller nit ñi mooy nañ di ut ay sangat am na sangat yuy mayee xaalis am na sangat yuy maye alal liggéey dina maye alal mais da nga gis ko la dàqal liggéey téeméeri junni yoon doo dana gis ko la dàqal liggéey téeméeri junni yoon te yow li ngay am moom du ko am te parce danga am ruq boo nekk moom nekk ci ruq ba am na lu mu gëm gëm loolu nañ ko ne ko ñii dañ lay naxat ñii dañ lay lii ak ñii dañ lay laa loolu wérut ñaan yonentu salaa daan la ñaan daan la ñaanlu moo ñu moo ñu moom la yàlla yónni yonentu salaa salaam lu masaa soxlaa soxlaa daf koy ñaan daf koy ñaan yàlla lépp loo gis nit ñi di ko sëriñ si fi nga gis nii ñëppay ñaanlu amul ci àddina bi fii ku dul ñaanlu fii amu fi nit ñi dañuy ñaan nit ñi dañuy ñaanlu ñaan ñaanlu kon nag da leen ñaan da leen ñaanlu da leen sangu sangu nag ku leen koy ku leen di teree sangu da leen di nax de sangu ñëppay sangu ñëppay sangu da leen suuru suuru nag moom mooy moom laa daan waxtaan sama rakk bi ma ne ko suuru moom mooy secret boo xam ne amul benn diine bu ko bañ amul benn système bu ko bañ boo demee église ba dañuy suuru soo demee ci protestant yi dañuy suuru soo demee ci <coughs> euh, euh, euh, jullit ñi dañuy suuru ma ne ko suuru moom mooy secret boo xam ne su ko nit ñi su ci nit ñi yeewu woon dootuñ ko sàggane suuru nag mooy affaire boo xam ne moom te valable ci mbooleem domaine yi moom ñëpp a gëm suuru moom cuuraay moom suuru moom ñëpp ko gëm moo xam na nga am cuuraay bu baax wala nga am cuuraay bu baaxul mais suuru moom àddina bi ñëpp gëm nañ suuru moo tax da leen suuru ah da leen da leen da leen sangu da leen suuru da leen sangu tey takk ngeen mën a mucc parce que jamono bi toll nii jamono la boo xam ne jamonoy jamonoy jamonoy rawante la de liggéey bay bëgg a dee sangu takk naan suuru suul bu leen baa dara da leen sangu da leen takk da leen naan da leen suur da leen suul nga tax ngeen mucc ngeen boole ci nag yéene nit ñi lu baax yéene seen xol yi ngeen rafet ko rafetal ko jëmale ci nit ñi bu leen yéene kenn lu bon bu leen yéene kenn lu bon bu leen yéene kenn lu bon bu leen ñaan yàlla kenn lu bon raxas leen xol yi sellal ko sellal xol yi bu baax a baax a baax waaw sellal leen xol yi raxas ko bu baax ngeen di ñaan di ñaanlu di sangu di suur di suul di eh, bu leen bat benn benn benn benn domaine lu ngeen ci mënul nag seet leen ku leen ci mën mu dimbale leen ci lu ngeen ci mënul seet leen ku ngeen ku leen ci mën mu dimbale leen ci bu dee jigéen la buy sëy sa sëy yëngu na ut ñaankat mu ñaanal la ci yàlla su dee góor la boo xam ne danga nekk ci activité di ci yëngatu yëg yi taxaw utal ku la ci ñaanal yàlla utal ku la ci ñaanal yàlla soo ko defee yàlla dina la ci defal tawfiix su dee jigéen la nga nekk koo xam ne doom daf laa jafe utal ku la ci ñaanal yàlla man maa ngi nii mënuma laa wax ñaata nit laa dimbalee pour ñu am doom ba yàlla may leen doom tey jii fi mu ne nii yàlla dimbale na ma alhamdulilah rabbil alamin ñi ma dimbalee bañ am ay doom mënuma laa wax nuñ toll te loolu yëpp li ma ko may mooy ah nekk ci lii ba yàlla may ñu ci ay secret yoo xam ne danañ ci dimbale nit ñi ñuy am doom dimbale benn nit ba mu am doom lañ cee jëlee ci ay tiyaabo mënoo koo wax kenn kenn ci kaw suuf moo tax da leen ñaan da leen ñaanlu ki nga xam ne na ñaanal la nit yàlla ba ñaan nga nangu ba koo ko gis boppam ba di ko ñaanal ne ko maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm bànneex boobu kenn mënta xam nu mu toll moo tax da leen ñaan di ñaanlu loolu laa leen di digal doom boo ko bëggee mu tëla dañ ciy ñaanlu yàlla mu may la doom xaalis soo ko bëggee mu tëla danga ciy ñaan yàlla mu may la xaalis jëkkër soo ko bëggee mu tëla danga ciy ñaanlu yàlla mu may la jëkkër oto soo ko bëggee mu tëla kër noonu te rek da leen yëkkati seen niveau di ñaan yàlla ay milliards waaw ndax bareen bi yàlla yégal na ko de waaw léegi da leen ñaan ay milliards bu leen di ñaanati ay junni ak ay cinq cent mille ay trois cent mille bu leen ko ñaanante da leen ñaan ay milliards parce que nga euh, système bi ni mu changé nga xam ne léegi boo bëggee woo Samba woo ko mu nekk France wala mu nekk de wala mu nekk Amérique noonu la compte yàlla yi changé yàlla ay comptam yokk na ko yëgal na kii bi yëgal na niveau bi da leen ñaan ay milliards di ñaan ay millions te bàyyi di ñaan ay cent mille ak ay deux cent mille soxla ay deux cent mille ay cent mille bu leen ko ñaanati da leen ñaan ay milliards di ñaan ay millions su ko defee yàlla bu lay nangul dina la may au moins dina la may ay cent cent millions wala may la ay deux cent millions cinq cent millions mais bu ngeen ñaan ay cent mille ay deux cent mille yooyu day tayal sax day wax na ñii sax xamuñ sama mbaax wala dañoo óoluwut ne man maay waxaabu wala man maay ah ñii moo tax da ñaan da leen ñaan da leen ñaan bu baax a baax a baax te ngeen ñaan ay ay ay milliards da ñaan ay milliards ay cinq cent mille bu leen ko ñaanati bu leen ñaanati ay millions da ñaan ay milliards su ngeen toogatee ci kanamu ñaankat da leen ko wax ne ko sëriñ bi man damaa bëgg nga ñaanal ma yàlla ma am ay milliards waxtu woowu mën na nekk waxtu nangu ñaan ci waa ji bu ngeen di ñaanati yàlla da leen ñaan yàlla ay milliards bu leen di xeeb yàlla bu leen natt yàlla ci natt bu tuuti da leen natt yàlla ci àndaar bu ngande nga xam ne léegi da ngeen di ñaan yàlla ay milliards nga xam ne da ngay wax yàlla dama bëgg nga may ma cent milliards nga xam ne foofu ngay commencé ay deux cent mille milliards yooyu ngeen di ñaan yàlla su ngeen koy wax su ma koy wax nii da yaakaar ne dañ naan est-ce que kii am est woy que kii ça va bien ça va très bien maa ngi ne rek maa ngi normal de li ma leen di wax ne du caaxaan de parce que damaa essayé yàlla di ko ñaan ci cinq cent mille cinquante mille ba gis ne ndeke yàlla ñu àttanal lu te loolu dañu ko doon wax rek mais àgguñ ci woon waaye ku dem ba yegg ci ñaan da nga xam ne yàlla attan na lu ne moo tax yàlla lu nekk yàlla moo koy maye bu leen di ñaanati yàlla da leen ñaan yàlla ay milliards ay millions su ngeen di ñaan yàlla ay kër da leen ko ñaan ay R plus 10 su ngeen koy ñaan oto da leen ko ñaan ay Maybach di ko ñaan ay Rolls Royce di ko ñaan ay Rolls di ko ñaan ay euh, oto yi nga xam ne day jar ay 400 millions ay trois 300 millions yooyu ngeen di ñaan su ko defee bu lay jox 4x4 dana la jox 4x4 dana la jox rance wala mu jox la euh, rance dana la jox rance mbaa mu jox la yenn 4 x yi kii yu yabambaay yi nga xam ne ay 40 millions lay jar 30 millions lay jar yooyu ngeen di ñaan mais bu leen ñaan ay ay ay paasu kaar ak paasu taxi ak yooyu bu leen ko ñaan loolu day tax yàlla jël ko jox ko ñeneen ñi nga xam ne duñ ko ñaan sax te xam nañ ne mooy maye bu boobaa daf leen di dévier da ñaan yàlla ay centaine de millions ay bu ko defee lu mu dee dee dee dee di nga am dara sooy ñaan yàlla nga ñaan ko kër booy ñaan nga ñaan ay R plus ay R plus 20. nga ñaan yooyu ngay ñaan te ñaan ci nag ay centaine wala ay vingtaine nga ñaan ko ci ay R plus 10 su ko defee yàlla dana la may soo jëkkër sooy ñaan ak sooy ñaan yàlla doom ngay ñaan yàlla doom yoo xam ne ay doom yu am barke la ñuy nekk ay doom yu am alal la ñuy nekk hmm? ay doom yu nekk doom yu tekki doom yoo xam ne àddina yëpp da leen di xam ngay jël sa temps di tudd say turu doom yi di leen ñaanal benn par benn ba yee yàkkanti ba ja param parami rek am na ñoo xam ne dinañ toog lu mat un an ñaanal seen doom du ñaanal seen doom yi di daw rek di daw rek di daw rek da leen ñaanal seen doom yi di te du toog di leen ñaanal du di di di bàyyi xel ci ñoom loolu laay conseiller nit ñi ngeen xam ne ñaan am na ñaan dëgg la waaw am na ay sangat yoo xam ne wér na am na cuuraay yoo xam ne wér na am na jaaroo yoo xam ne wér na am na ndomb yoo xam ne wér na daj ci nag bu wér bi moo jafe waaye alhamdulilah rabbil li ma leen di wax mooy da leen ñaan da leen ñaanlu da leen sangu da leen suuru da leen takk da def yooyu yi mën naa leen ko digal man Cheikh Omar Diop ngeen xam ne lii ma leen di wax nekkut loo xam ne maa ko sos nekkut loo xam ne sama waxi bopp la leen la lu ci nekk taarix ñëw na nett li ñu fu ko yonentu defee wala fu ñu ko defee ci kanamam waaw bu dee takk Seydina Omar takkaloon na ab buur benn téere ci boppam bi ci mbaxanaam su dee sangu la yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jibril ñëw na wax ko na ko na jël xaraf saar wi nga xam ne amul xarafu faa mu sangal ko Seydina Ousseynou xoma Seydina Hasan sangu foofu yonentu def na ko bu dee suur la bu dee suuf la yonent jël na suuf sa jan baraay sàbbal ci ba ko sànne yàlla na ko wa isra ma ramayta isra mayta walakin allaha ramma yonent jël na suuf jàng ci tëfli sànni ko jëfandikoo na suuf su dee e, e, e, bi nga xamee ne yéeféer yi programmé nañ pour rey ko bi ko yàlla waxee way samkur bi ko lasi kafarolu yusi tooga aw ko ay yokkilaw dama dama fàtte aaya bi wa yamkuruuna wa yamkuru llaahu wallaahu xayru maakiriin su fekkee juum ma ci aaya bi ya keroog bi ko waa Makka euh, préparé xeex pour rey ko keroog la ko yàlla wax ne ko gaa yaa ngi fexe de yéeféer yaa ngi fexe waaye yàlla la ngi dàqa fexe génnal Makka tey gàddaay du fi fanaan génnal Makka mu jël suuf jàng ko yaasin ba ci ba ci yëpp ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم تنزل قوم ما أنزلنا آباءهم فوق قبل لقد لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون ba yubsiruun na ba mu ko jàngee tëf li ko ci suuf si sànni ko gaa yi gaa yi yëpp a nelaw donc jëfandikoo na suuf nañ yeewu yonent jël na loxo bii jàng ci li muy jàng di di bës loxo bi nii ndox génn ci xare tambo bi bi bi gaa yi demee ci xare ba xare bi nit ñi di xare xare xare ba mar mënut am luñ naane yonent bi alayhi salaam jël na loxoom bii def ko nii ndox génn ci ñu sangu ci sangu ci janaaba du ci ay muus naan ci naandal seen i gëlëm def lépp ci xare ba loolu loolu loolu yonent def na ko kon nañ xam ne gaa yi ñooy oote noonu gaa yi ñooy oote ci téléphone bi maa ngi maa ngi jéglu ci gaa yi ci kii bi loolu yonent def na ko su fekkoon ne dafa wakkilu ci yàlla kese kese kese kese kese kon yooyu du ko ci fekk du fi jéem a nekk naan day jéem a day jéem a day jéem a jël euh, euh, ay yooyu di ko jëfandikoo daf ñuy jàngal ne mën na nañoo jël ci ci ci ci suuf si jëfandikoo ko mën nañoo jël ci jaww ji jëfandikoo ko mën nañ yonent saa jàllal na ay loxo ñaan yàlla jël na suuf jëfandikoo ko jël na ndox jëfandikoo ko kon nañ conscient nañ yeew bañ a topp ñi nga xam ne jëmuñ fen di ñuy di leen di leen di leen di nax waaw di leen di nax bu leen ko nangu àddina bii ñu nekk àddina la boo xam ne ku nelaw ñu raw la ku nelaw ñu raw la ku nelaw ñu raw la kon nag loolu laay conseiller nit ñi man Cheikh Omar Diop fii ci cité Aline Sow man maa man maa nekk kii di wax ak yéen man maay kii def ay ñaan maay defar jaaro bi maay defar ndombo gi maay defar sangat yi te maa ngi koy jox ay nit ñu ngi ciy gis seen bopp te li ma leen di wax lu wér kéng maa ngi ciy jox nit ñi ñu ciy gis seen bopp bu baax a baax a baax a baax a baax waaw kon nag li ma leen di digal mooy ngeen ñëw ut si jaaro bi ut si ndombo gi ndax su ngeen ko defee da ngeen gis li ma leen wax waxuma ko nag ngir euh, propagande dama ko wax parce que am naa droit wax ko ndax bientôt ma def vingt ans ci lii may wax nii te yàlla mu ci defa suutalo maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne adresse bi fii la ci cité Aline Sow villa 652 ku fi ñëw ci cité Aline Sow bu nekk golf villa 652 téléphone bu mu nekk 78 500 162 64 64 78 162 64 64 mooy adresse bi 78 162 64 64 mooy numéro téléphone bi ku woote ci numéro téléphone bi dañ la tegtal adresse bi ba nga ñëw fii cité Aline Sow villa 652 ci jumaa ji boo ñëwee ba ci jumaa ji rek boo laajtee ñu won la kër gi incha allah ñu ngi leen di ñaanal yàlla ay milliards yàlla may leen fan wu gudd ak wér may leen xaalis bu bari may leen jàmm may leen sutura may leen teraanga Sénégal yàlla saxal fi jàmm saxal fi xéewal saxal fi sutura saxal fi naataange yàlla Sénégal yàlla bu mu a am guerre mukk ku dëkk Sénégal la yàlla nga nekk milliardaire ci barke Baay Ñas barke Cheikh Ahmad Tijaan barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ma salika ala lahi basisi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen jëf